Assane Samb ñu ngi lay nuyu. maa di fay baax Ndemba fàttali ni yow journaliste nga itam analiste politique euh, déglu nañ président de la république jël na ab dogal euh, mel ni ku dàq li nga xam ni moom moo jëm ci élection yi parce que ñenn ñu ngi laam-laamee sax naan dàq ko dafa def nuance waaye ci xelu nit ñi moom rapport am na lan mooy sa xalaat ci wàll wi ni mel. waaw sama xalaat de mooy wax dëgg yàlla situation la boo xam ne jaaxal na Sénégalais yu bëree bëree bëri naxar naxar na naxar naxar na aussi ñu bëri naxari na ñu bëri ndax ay nit dañoo góorgóorlu bañ leen di jàll ngeen parenage metti na lool ndax élection da ngay jóg di tourner wër Sénégal dépenser ay million bañ la ne candidat nga nga jóge fa engagé ay nit xeex bañ la ne candidat nga nga ñu jóg annuler lépp loolu tamit métti na trop beneen président nangul wax sax pouvoir yi ka may lool mu li mu def wax na rek ni am na crise diggante parlement ak justice mais nangul wax crise boobu yan pouvoir moo ko may moom mu arrêté processus bi article cinquante deux la waroon na ko wax clairement waxu ko beneen bi mooy les conséquences moo gën a graawate conséquences yi moo gën a graaw mooy waxul sax ban période la ñuy organiser la si waaw ah, lan mooy conséquences yi ah waxul dara autrement dit dialogue la wax dialogue nag organiser guñ ko sax far le temps que ñuy bay pare dialogue bi bay tiré conclusion yi bay bay bay bay bay samp dab loolu dina yàgg di est-ce que du na un an deux ans trois ans je sais pas donc actuellement président de transition la ñu am. boo xam ne leer na kon. <laughs> président de transition boo xam dafay nekk nii rek comme ñoom ñu def coup d'état noonu toog nii di xaar eh, ay nouvelle élection ñu naan ban date lay doon ñu naan on va voir donc yooyu mooy suñu problème. te dialogue bi muy wax noonu gars yi du ñu dem si du ñu dem si dialogue bi parce que boo demee si dialogue bi day mel da nga cautionné li mu def. kon ñoom Ousmane Sonko amuñ si intérêt dem toogiwaat ci waxtaan. non Ousmane Sonko sooy kenn du ko invité. est ce que xamoo tax. waaw ah, lan moo tax. amatul parti. Hmm. pour ñu invité ex Pastef. <laughs> coalition bi nag Diomaye président. ah déedéet kenn du invité ay coalition parce que ah. élection yi amul ba coalition di am. yooyu c'est terminé. parti yi la ñuy invité ak mouvement yi ak coalition parti. peut-être yeewu askan wi mën nañ invité non même kenn du invité sax coalition parti la ñuy invité. parti wala mouvement. waaw ñaar yooyu lañ wala société civile. kenn du invité personnalité indépendante kenn du invité ex waaw yooyu kenn du invité autrement dit ñoom ils sont exclus déjà du débat ñoom ñoom moom ils sont exclus du débat waaw léegi léegi nag. loolu mooy indi impasse même ñi nga xam ne sax ay ay ay ay Khalifa Sall bul ci ñoom xanaa waa PDS parce que ñooñu mënuñu cautionner li Macky def d'ailleurs sax di génn ay communiqué wax ci wax ci proposition président di ci di nga gis communiqué yi daa xëy ils parce que mënuñu cautionner le président def. dafa mel ni situation bi mosuñu ko dund de. non non c'est une crise eh, grave te c'est une crise institutionnelle créée créée xam nga dañ ko créé du crise boo xam dafa am crise day jékki-jékki am mais crise boo créé sa bopp xam nga ëllëgoon musiba dal suñu kaw ñun ñoo dal si kaw musiba mais fekk musiba ñu dal si kaw. maanaam maanaam te ñoo ko def exprès pour mën a régler yenn problème yi est-ce que luñ ci jublu ban je pense que c'est pas pour Karim nekk candidat rek moo tax ñu indi problème yi yëpp. kon am na euh, lees waxoon. seen problème seen yoon nekk si ay Karim bëgg euh, bañuñu woon candidat Karim mais soxalu leen li leen gën a soxal mooy Diomaye mi nga xam ni nekk na candidat ci biir gàtt gàtt bi. gaa yëpp dem commencé daw di làkkatu ci moom ñu mere régime bi dëgg-dëgg ay Mimi Touré ay Aïda Mbodj ay kan xam ñu commencé am force noonu loolu moo leen nekk seen problème jacquard beneen problème bi mooy le cas Amadou Ba nga xam ni en interne gaa yi koy critiquer waaw doyen foofu sax dañ fay taxaw ndax boo xoolee ñaari ministre de la République taxaw Uh, di wax seen candidat bi yow bu fekkee ni diw daf la da nga yaakaar diw doo mës a dugg ouvertement te ñoom ñu nekk ay ministre te ki leen yilif nekk Amadou Ba nekk ilimaanu jëwriñ bi. oui mais c'est ça a suis depuis quelque temps amadu kaam kaam dafa garaaw parce que c'est le premier euh, candidat boo xam ne nekkul chef de parti nekkul numéro de c'est-à-dire presque amul benn autorité ci waa parti mais taxul nag ñu koy ñu koy ñu koy xas teewul ñoom ñu dal ci kaw li di ko parce que candidature am daal ñoom sawaruñ ci ñoom nag ñoo xam lu tax waaw ñoo xam ne tax sawaruñ ci. li ni mel ban jeexintal la mën a am ci biir nekkin bi Benno Bokk Yaakaar déjà APR kon ñaari camp dégagé wu na ñii Amadou la ñii Macky Sall est-ce que mënuñu créer foofu benn tension. mais si tension bi mu ngi tension bi mu ngi fi di boo boo critiqué Amadou waa waa Amadou Ba yi mere nañ la tension bi yàgg mu ngi léegi nag ñi nga xam ne am na critique ba pare duñ ci ci def dara dañ naan fat toog jàpp seen naan di seetaan ñooñu aussi kenn léegi nag tension bi mu ngi fa est-ce que Macky si boppam moom day toog benn yoon nekk candidat parce que comme def na lii rek ñu mën a la leen. kon mun na nekk mag président Macky Sall mu nekkaat candidat. ah waaw ah comme comme ñi na a bloqué élection yi kay ñi mën a la leen bloqué élection yi gën a garaaw bi yow lu tax ni élection nga bloqué ko processus électoral bu àgg ci ñi mu waroon commencé campagne ñëw mu bloqué lépp looloo gën a garaaw ku ñemee loolu ñi mën a la man de fi mu nekk nii dara dootu ba te ñu ngi wax juróom benn weer te yow sa natt yaa ngi ko jëmale booru ut ut bu ñu yeggee foofu nawet ku maylu itam mën nañ ko dàkkaat waaye ma ne ma ne kay fekk un an sax moom góobu ko gën gaa tuuti daal man un laay jàpp gën ngaa tuuti laa léegi nag peut-être mën na dem deux ans je ne sais en tout cas daal ñun xamatuñ daal ci lu ñu nekk comme la pour la président jël na ay pouvoir exceptionnel mën na décider lu ko neex dissoudre le conseil constitutionnel dégg nga mettre fin à tout ça gouvernement bi moom da koy dissoudre xam naa ne. ah oui. Ah, nu mu koy defati bu defee peut-être def remaniement am def ay lu ko neex daal mën na ko def. def ay plan gisuma fi daal loo xam ne léegi leer na comme léegi jël nañ yëpp teg fee li ñu tegoon yëpp loi bi li mu waxoon yëpp jël nañ ko teg nee à partir de man xamatuma ci dara ku si waay mën di wax day wax rek parce que nee na dialogue amagul bu <laughs> dialogue boo xamoo luñ koy wax. te am na ñoo xam ne du ñu ñëw. ah am na ñoo du ñëw te dañuy def réforme bu ñu dialogué mën nañu def réforme texte électoraux yëpp réformé ko. wax ni léegi ku ñu accusé ti ndàngam doo mën a nekk candidat yooyu yëpp mën nañ ko def ah dialogue dialogue la rek. te boobaa dinañ ko appliquer. Ah, boobaa ñu appliqué mën nañ aussi avant que dialogue jeex ñu jugé ay nit tëj leen yooyu yëpp day am donc man damay wax ni à na de maintenant bon man xamatuma si dara. parce que je dis que ñu ngi ci période déception genre coup d'état la euh, un coup de force bon coup de force bu amee affaire garsa garsa la rek mooy garsa garsa yi ñu doon léegi ban jeexintal la mën a indi déjà ci askan wi laata ñuy ñëw ci assemblée nationale ak taxawaayu parti démocratique sénégalais. non non askan wi moom. bari na si ñu découragé am bari na ñoo xam ne homme leen bett du leen bett mais l'essentiel nañu am suñu matuwaay rek ñun askan wi na bu ñu xeex bu ñu xuloo bu ñu yàq ndax suñu réew la loo gis day jeex ñu am suñu matuwaay dem liggéeyi rek bàyyi leen ak seeni politique parce que boo fi nekkee di xuloo xeex tamit dañ lay tëj doom wala nga faatu ci wala nga gaañu ci wala nga yàqule ci wala sa ñooñ xale yi ñuy jóol utiliser aussi ñu moytu ko parce que xale yi tamit dañu war a xeex seen avenir c'est vrai mais buñ ci boo ci dee wala nga dugal si kaso lu yàgg dalay yàqal sa avenir donc nañ ci teey def ci ndànk ñu xam ne jàmm daal ci la lépp xaj et que yooyu yëpp day jeex beneen situation bi bokk na ci assemblée nationale daanaka Karim Wade li mu waxoon ma ngay mel ni kuy bëgg am ndam yow mënees nga ko jàppee ndam ci li nga xam ni moo jëm ci report bi nga xam ne amal nañ ko. ah waaw parce que ñoom loolu la ñu waxoon waa peut na ne bu ñu bokkul du du fi am mais loolu moom te ñoom tojuñu de xulóowuñu xeexuñu tojuñu. maanaam pexe. pexe la donc ñoom ñoom am nañ foofu victoire bu mag de. bon beneen bi nag mooy Karim nekkagul candidat quand même parce que kenn nekkagul candidat kenn nekkatul candidat on ne sait jamais kan mooy nekk candidat ou pas moom aussi ñu biseegul Sénégal kenn xamul lu muy def Qatar euh, vraiment. amul lu ko téem ah suñuy texte de loi amul amul exil suñuy texte loi amul exil lu ko yóbbu Qatar xamuñu ko lu téye xamuñu ko lu ko fa bàyyi ba léegi xamuñu ko lu ko téye ñibbi si xamuñu ko mais ñoom yooyu dañ ci war a expliqué wu. Karim balaa mbir yee neex mu ne cëpp Sénégal ñu xam ne mu Sénégal. mais ñàkk nekk Sénégal boobu déjà loolu rek problème donc euh, ndam bi lu mun am am am te yow ñibbisi woo xeexoo nekkoo sur le terrain mais lool day day nekk problème pour waa PDS d'abord ensuite pour sénégalais kon lii dina indi beneen recomposition ci langum politique bi. ah waaw léegi kay moom yaakaar naa dañ kaa <laughs> parce que boo ne Cheikh Tidiane Dièye bul enregistré RTS loolu ça veut dire beaucoup de choses rek. ça veut dire beaucoup de choses c'est-à-dire que am na ñoo xam dañ leen bëgg a exclure du jeu électoral hein carrément est-ce que réforme yi ñëw réforme texte yi parce que ku dee dialogue da ngaa bëgg a réformer loi yi da ngaa xam bu ñu réformer lu ñu def ci loi yi mën nañu def désormais si tu es accusé d'atteinte à la wala xawma lan doo nekkati candidat yooyu mën nañu ko def ci loi yi ba donc euh, il faut voir que euh, parce que Cheikh Tidiane bi et autres là ku mel ni député yi Pastef yeeg yooyu moo leen jàppale ay si Eh, yooyu on pense que ils sont avec Sonko loolu moo ni xeex bi donc garsa garsa bi moom moo continuer jusqu'à présent peut-être que moo tax sax ñu reporter élection yi avec la candidature de Diomaye parce que xalaatuñ woon ni conséquence àddina dina yàgg ba ñu valider la candidature de Diomaye mais ñu bari dañuy jàpp ni démocratie bi mooy gën a suuxat ci li ah, ah. président Macky Sall def ah oui kay démocratie kay day sooxe bu ma waxee coup de force kay démocratie amu fi de force fu ñu ko waxee rek démocratie amu fi bu de force boobu fu ñu ko rek démocratie donc malheureusement pour suñu démocratie euh, am nañu recul euh, donc euh, l' essentiel mooy am nañu recul démocratique mais nañ préserver jàmm li bon nag mooy am recul démocratique pare am am aw ay ñaar boole ñaar yooyu fitna yooyu waaw Assane Samb ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ni nga nangoo tontu suñuy laaj bokk. di fàttali ni yow journaliste nga itam di xeltu ci wàllum politique. merci beaucoup Abou.